am mbégte ak kontaante comme ni ñu koy def chaque fois lépp li nga xam ni moo doon actualité ñu indi leen ko alors tey gis ngeen ñoo ngi toog kii di Mame Ndiaye Savon bu nekk troisième édition bi nga xam ne nii à chaque fois Kazu Rajab bu jotee moom da koy woote fii te moom la ñaanoon sëñ Fallou Mbacké alors maam lan ngay tëjee tey gisa mbooloo mi tey nga woote ni wuy la daaw gisoon nañ ñu meloon waaye rey waaye ren gi dafa jégg dayoo barke Serigne Fallou Mbacké rek sant yàlla bu baax a baax julli ci yonent bi sant samay ñaari waajur teg ci Àllaaji Fallou Mbacké bis bi ala ndaw mi na réussir na kontaan naa ndax daaw ni mu meloon bu ren bi kenn xaju te leer na leen di sant ñëpp di leen gërëm di sant site internet yi waaye ren sëñ Fall dama rëq daf ma rëq ren ndax moom du bàyyi waayam sëñ Fall kenn du ànd ak moom mu di la seetaan waaye ki ma wéeru moo mat wéeru waaye allah ji Fall Mbàkke hmm. en sa sa ak sëñ Fall lan la bëgg sëñ Fallu rek doyloo sëñ Fallu nag di tiitaroo sëñ Fallou di yaay sëriñ Fallou sëñ Fallou mayati na ma ndam dama daan wax yaay sëriñ Fallou amati na ndam dama naan yaay sëriñ Fallou Mbacké amati na kii nu ñu koy waxee médaille médaille laa am fi mu ne ndam yi dafa bëri médaille laa am barki sëriñ Fallou Mbacké sëñ Fallou nag li ma ànd yow tiitu ma ko ragalu ma ko jaaxlewu ma Fallou bu sa yaa ma sagal man kenn nawloo ma woon kenn bëggu ma woon territoire laa nekkoon di tëdd ci carton yi leer na Sénégal gépp gazuwaali jàpp ma lakk ma ba ma ñuul damaa meloon ni bun na kaa rapide sëñ Fallou raxas ma ba ma set sang ma ba ma set solol ma mbubb yu rafet teg ma ci avion yi borom zipp yi waaxu ma yuuxu fi mu ne dama am xaalis sant yàlla sant yàlla sant sëñ Fallou dama sonnoon territoire laa nekkoon sonn ma sonn jaay naa ndox jaay naa lu ne yéen ñëpp bu leen découragé bu dee man mi la yàlla teral barke Alaaji Fallou Mbacke yéen ñëpp la yàlla teral am bi laa naa dem naa lu ne barke Serigne Fallou Mbacke alors fu mu yi nii mu teral la teral ñi nga xam ne ti mooy say morom tey mën nañu wax ni bis bi bés réconciliation la nga gis ñu xam ne ñu bëri euh, Mame Ndiaye sama bokkoon ñoom liggéey wala xamante ak ñoom wala moo ngi nekk ak ñoom si biir TikTok tey ji ñëpp ñëw dama jaaxle tiit barki Serigne Touba Mbacke Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar tey Sénégal gépp ma wuyu si billaahi wallaahi wal kitaabi ku ñëwul yëguma ko ndax tey ñi ma gis te ku ñëw rek dangaa indi sa doole ndax bisub sëñ Fallou bi lu ci waay def bu nekk dala yàlla dala koy fulal sëñ Fallou kenn du ko may benn te du la may fukk bañ ne ko daane juróom-ñaari sëñ Fallou danga koy may benn mu may la mu dolli la juróom-benn mu nekk juróom-ñaar. waxaa tey lii day signifié rek ëllëg bis ngi tey dootuñu dégg Mame sa Savon si benn histoire wala benn problème parce que fu mu toll nag ñëpp ko jox bopp. tey laa gën a mën a histoire suñ ma bàyyee tooñ. tax ku ma yàpp bugguma ku ma manque de barki sëriñ Fallou ndax gaynde laa bésu sëñ Fallou bi kafu ma ci réew ma ci ndax sëñ Fallou rek laa bëgg waaye kenn du ma yab. mais mm-hmm. sa jotul tamit maam ba mu fekkee dañ la tooñ sax wala dañ la yab sax nga bàyyi suuf nga nga nga baale. man xullooy sama gàllaaj nga naan ma bàyyil ci suuf kii wér na xulloo di sama gàllaaj nga naan ma bàyyil ci suuf yéen da ngeen wax nag waxu nit yéen journaliste man xullooy sama gàllaaj. kon doo bàyyi xuloo yàlla tere. alors maam bu temps bu ñu déggee si nga toog yaa ngi wax naan danga doo bàyyi xuloo des fois ñu gis si say say say say euh, TikTok say direct ngaan góor day dëgër ñu bëri jàpp ne. xanaa tey lii day suñuy fere que bi bis ngi tey dootuñu dégg Mame sa Savon si benn histoire wala benn problème parce que fu mu toll nag ñëpp ko jox bopp. tey laa gën a mën a histoire suñ ma bàyyee tooñ. tax lool man dama wex bugguma ku ma yàpp bugguma ku ma manque de respect barki sëriñ Fallou ndax gaynde laa bisu sëñ Fallou bi kafu ma ci réew ma ci ndax sëñ Fallou rek laa bëgg waaye kenn du ma yàpp est-ce mm-hmm. que jotul tamit maam ba mu fekkee dañ la tooñ sax wala dañ la sax nga bàyyi suuf nga nga baale man xulooy sama gàllaaj nga naan ma bàyyil ci suuf kii wér na xulloo di sama gàllaaj nga naan ma bàyyil ci suuf yéen da ngeen wax nag waxu nit yéen journaliste man xullooy sama gàllaaj kon doo bàyyi xuloo yàlla tere alors maam bu temps bu ñu déggee si rumeur nga toog yaa ngi wax naan danga doo bàyyi xuloo des fois ñu gis sa sa say say say say euh, TikTok say direct nga naan góor day dëgër ñu bëri jàpp ne maam kat dafa ki nga xam ne nii moom lay gaaruwaal muy jëkkëram. jëkkër ja sama jëkkër laay gaaruwaal kon de ma manqué fay biram penda waagaan dugg-dugg waagaan xandis waagaan waagaan ko ma sàññaan mu bëgg ma loolu tekk ma ci farataag yàlla ak sunna su ma jural ko doomam i ambisu bisu Allaaji Fàllu di gaar gaaruwaale sama jëkkër kon ma manqué moo ma jox warugar teral ma xewal ma xew mu rëy teral ma ay waay tey ngeen a bàyyi sama sëy bii ngeen yàll yàlle ni jinjeeru takk man tasuma tas liwu ma fam naa ne tas bi yàkkamti ngeen ko ndax chaque jour ngeen wax ko waaye man waaju ma tas waaju ma tas barke allah ji fàllu ba man buñ ma fasee dew ma ñu ñàkk maa fase dew ma ñu bulee ma dew ma ñu buux ma dew ma xanaa maa mën a sëy réglé leen maa ñàkk jox nga takk ñeenti jabar ma toog di muñ xanaa maa mën a sëy sëñ Fallou rek a yaakaar sama doom ji ma am ko di sëñ Fallou di tas du ngeen ma ñaanal jàmm tey wax waxu nit daar ma ji nañuy wax waxu nit daar la daar ma demaat tiit ci wax ji dafa jot nga leeral parce que ñu bëri jàppoon nañ fu mu toll nii maam Ndiaye kat fu mu toll nii tas na ñu bëri loolu la man tasuma te bu ma tasoo ni damaa pànk damay taxaw ci site internet yi ne leen tas ndax daw ma dara ndax yàlla ba muy tudd sey daa bind tas te tasit du fi mbañ ndax si réew mii tas du fi mbañ waaye nag tubaarkàlla bis buñ ma ma buñ ma mayee baat man ma taxaw man maa ko inte yéen yéen ñi da ngeen maa dàq wax da ngeen maa jël suma ma nee salaamaaleykum taal sama directive ñëpp may déglu dama naan leen salaamaaleykum bañ na maaleykum salaam ma ne leen maam Njaay tas na te bu boobaa wax du am bal du tàq fetal du jóg ndax ba ma lekkee warugal damaa naat ci kaw doom. kon maa amul benn problème ak ak jëkkëram. aw ma ak sama jëkkër benn problème dadi man maa sonn ci wax jeeg jaabante beeg dama ko ñëw xam nga lan mooy jaabante beeg dama ko ñëw ak leeral réew mi bañ may maye warugar bi kenn nanguwu ko. internet bi nanguwul sama warugar ñu takk ma ci farataag yàlla ak sunna su Muhammad tey internet bi taxaw ne ma damay tas bi may sëy dama leen a tàggu bañ may tëggal mbay dama leen a tàggu ba may baas di sol robe mariage dama leen a tàggu kon tey ngeen a bàyyi sama say bi ngeen ni yàlla yàlla ni takk euh, kiiwu ji jinjeer journaliste yi maa ngi leen di remercier yéen def ngeen lu rafet kontaan naa ci yéen seen liggéey rafet na di sant ñi fi ñëw ñëpp di sant daa mi sama waa ji maa moom dafa yàgg barke Serigne Touba gëj na ñoo déggante waaye dama ne lu yàgg dëgg la nit booy ànd ak moom da ngay ànd moom ci ngor ak personnalité ndax tey ànd bi bu dul woon ngor ak personnalité internet bi nangul sama warugar ñu tekk ma ci farataak yàlla ak sunna su Muhammad tey internet bi xaw ne ma damay tas bi may sëy dama leen a tàggu bañ may tëggal baara mbay dama leen a tàggu ba may baas di sol robe mariage dama leen a tàggu kon tey ngeen a bàyyi sama sëy bi ngeen ni yàlla yàlla ni taq euh, kii wu jinjeer journaliste yi maa ngi leen di remercier yéen laa njëkk a def ngeen lu rafet kontaan naa ci yéen seen liggéey rafet na di sant ñi fi ñëw ñëpp di sant daa mi sama waa ji maa ngi moom dafa yàgg barke Serigne Touba gëj na ñoo déggante waaye dama ne lu yàgg dëgg la nit booy ànd ak moom da ngay ànd ak moom ci ngor ak personnalité ndax tey ànd bi bu dul woon ngor ak personnalité du ma fekk si nanu bàyyi ànd bu ñaaw di sant allaaji di mbay mi sama waaji di sant ñëpp ñi fi daje ndax su ma tuddee tur dinaa juum de ndax ñi fi ñëw daa bari maa ngi sant ñëpp di sant allah di fàllu mbaak fàllu aw bu sa jëx réew ma ren danga maa xët bu subaa damaa ren danga maa xët bu déwénee damaa bëgg nga bule ma na ma bule damaa mës a cof daa may def nii defaat ma ni defaat mi ren mu xët ma déwén na ma kaj na ma kaj nanu sent fu ne nañ ma séentu fu ne jëlal ma sama kii mu wax lu baax waaw maa ngi nuyu ñëpp ah, di ziar di delloo ñëpp njukkal di sant sama jigéenu bopp bi nga xam ni dañoo yàgg te lu yàgg dëgg la te soppeeku bewoo soppeeku woo bewoo sa soppeeku gisuma ko sa bopp gisuma ko dëgg nag euh, du ñu fréquenté lu bëri yaa ngi toog fi nga toog maa ngi fi ma toog mais li ci xef yi li ci xol yee ko gën. nga bari jom bari fula bari fayda man damaa bëgg nit kuy def lu baax ndax euh, baadoolo du gërëm kuy ñaan du gërëm ku soxo du gërëm da reewoo soppeeku woo boo reewee sax sa reew na woonoo ma ko te yoo xam nga ne man man man mii toog maa la gën a reew kuy reew ku ne man lay jàppale du dagg mais li ma xam ci yow rek dama la koy seedeel noonoo ba tey sax du du ma ko yàq du ñaaw day neex dama joxe exemple rek xam nga ma reew na góor gisuma ko ndax mënuloo ma ko bew boobu ñuy wax gisuma ko ndax mënuloo ma ko mooy la nga wax xamante nañu dem bu la neexoon bew sëriñ boo koy tiitaroo da nga koy wane di ko jëfee sëñ Babacar mooy sama sëriñ dëgg la ku nekk ku sañoon bu gàmm jotee di nga di nga euh, tànt def tànt bu mel nii ngir sa sëriñ waaye am na ñoo xam ne am nañ ko li nga yor yor nañ ko mën nañ ko mais seen sëriñ jaralul leen ko nag sa sëriñ dala koo jaral moo tax nga di ko def du dëgg bu la ko jarul woon doo ko def sëñ Mansour Sy nee na ku bëgg dara da ngay def ca dara ja dara sëñ Mansour ko borom daara ji nee na ku bëgg dara da def ca dara ja dara dara ja jaral la dara sëñ Fallou jaral na la dara nga def ca dara def nga ko daaw def ko daawati jéeg def ko di nga ko def di ko def di ko def te da ngay yokk ndax dang nga koo def mu jig la boo ko deful woon jugu la amaana ban doo ko def li nga bëgg nag yaa ko xam yaa na la ko yàlla defal te yàlla la ak ndax olof Njaay nee na lu dagg morom ma lay fekk na la yàlla bàyyi ak ba Mbaye mii ngeen ànd seen ànd te ñuy jël jën yi di jàmb ci sooñ te yoo xam nga ne man man man mii toog maa la gën a réew kuy réew ku ne man lay jàppale du dagg mais li ma xam ci yow rek dama la koy seedeel non non ba tey sax du du ma ko yàq du ñaaw day neex damay joxe exemple rek xam nga ma reew na góor gisuma ko ndax manu loo ma ko bew boobu ñuy wax gisuma ko ndax manu loo ma ko mooy la nga wax xamante ne ñu dem bu la neexoon bew sëriñ boo koy tiitaroo da koy wane di ko jëfee sëñ Babacar mooy sama sëriñ dëgg la ku nekk ku sañoon bu bu gàmm jotee di nga di euh, tànt def tànt bu mel nii ngir sa sëriñ waaye am na ñoo xam ne am nañ ko li nga yor yor nañ ko mën nañ ko mais seen sëriñ jaralul leen ko nag sa sëriñ dala koo jaral moo tax nga di ko def du dëgg bu la ko jarul woon doo ko def sëñ mën soo si nee na ku bëgg dara da ngay def ca dara dara sëñ mën soo la ko borom daara ji nee na ku bëgg dara da ngay def ca dara ja dara dara ja jaral la dara sëñ Fallou jaral na dara nga def ca dara def nga ko daaw def ko daawati jéeg def ko di nga ko def di ko def di ko def te da ngay yokk ndax da nga koo def mu jig la boo ko deful woon jugu la amaana ban doo ko def li nga bëgg nag yaa ko xam yaa na la ko yàlla defal te yàlla bàyyi la ak Zale Mbaye mii mm. ndax olof Ndiaye nee na lu dagg morom ma lay fekk na la yàlla bàyyi ak Zale Mbaye mii ngeen ànd seen ànd te ñuy jël jën yi di jàmb ci soow ko bàyyi ñiy jël jën yi di jàmb ci soo mi bàyyi leen ko dëgg la réew fi xaj mm-hmm. dul jàmm jàmm ko gan maa ngi lay tàggu ngi ñibbi kontaan rek man moom kontaan rek man moom sama waa ji ndeysaan aw ma lu may wax dama kontaan rek daa mm-hmm. ndax li ma naan ki tax ngay ki tax ngay tax te mosul taxaw ne yaa tax may tax boo goree rek ne ko yaa tax may tax mm-hmm. te ma déggee Zal Mbaye ci réew mi à cause de moom te ku ragal du gërëm ku soxor du gërëm te àdduna kaset la das koy arrière àdduna kaset la bu ñu xool tey nan nuy xool démb ba ma mënulee dara kenn xamuma kenn mënu kenn mënu maa ne Zale tey jii kaay kaay liggéeyal ma ca la ma jëloon teg ma ci wetam bëgg ma lool lu mu nekk maa ngi ci bañu ma sama diggante moom ba ñu ma ci dara ba ñu ma dégg dara lu lu ma waay wax bëgg naa ndax maam Ndiaye ndax nag kaay daf maa def loo xam ne te jii ndey defaluma ko bàyyi defaluma ko mag defaluma ko te ku ragal du gërëm man man loo may gis nii maa moom a yem danoo yem jikko damaa naqari di moom a yem danoo tàng waaye dafa nekk nit ki nga xam ne dafa sincère ci nitam dafa mën nitam mhm. dafa nekk nit ki nga xam ne xolam moo tax li mu am yëpp mu ko te ku ci sa xol mooy sa wërsëg te xol ku ci sa xol mooy sa gàllaaj maam amagul lii li man maam bii mooy quatrième édition man bii mooy troisième édition may làng ak maam fii ñuy Kazu Rajab barke Alaaji dem changé ay xarit ay xaritu tayam waaye nekk dafa nekk ni nga xam ne démb ba tey maa ngi fi ndax jaral na ma ko lu ne xew na fi sama diggante ak moom mais daf maa bëgg danoo bëggante man nag moom na ci xef yi na ci xol beeku gën barki démb la yëkkati million may ma lu ci waay mën yaa ko moom lu ci bàyyi ma. alors maam gis na kàddu yi nga xam ne nii Baye Zale ñëpp ci dara alors euh, gis nañ temps yi di problème ak Ticket Laobé est-ce que yaa ngi si dox jàmm pour ñun ñaa ñu jubóo. Kas rajo bi rek a ñu ñor jamono ji. man de barke Alaaji Faalu Kas rajo. barke Alaaji Faalu ñu ci Kas rajo bi man de booba ma dee laaj danga may laaj maam Ndiaye ñaata mën la riz. ak nag yi ñaata mën la pàdd. ak nag yi ñaata nag te maam li ma gën a neex ci nagam yi nagam yi xooloo xam nga baax ma nag yi 6 mois la. 6 mois la 6 mois la nag bu ne 6 mois la. ay oignon oignon yoo xam ne moo tax dañuy gaaw a ñor loolu daal loo nga may laaj. loolu rek nga ñuy laaj tey